moo sol yére bu weex bi frontière numéro 2 waaw frontière la ak usine technique frontière mi muy mujj arène si kaw si ndam la jógee waaye dafa tuddee boppam ku mag tuddee boppam daanaan waaye kenn usine technique la turandoo ba si kaw. waaye daa mel ni seen naa fi turandoo bi ñu koy ñaanal wér gi yaram di ko ñaanal gudd fan. Franco numéro 2 moo sol yére biñ xaatim dafa foofu teel yi waaye zo technique ndeysaan frontière guer seen noonu si biir géew bi <laughs> tey jii la Pape Ndiaye Seras ko andi moo yor licence am mooy ménagère am waaye mi ngi daje xale boo xam se ni mooy si dëgg te beneen wàll gën a ne bi wax naa ne bi njëriñam la ñaari xale rek ma doon la grand combat boo xoolee tey ñaari xale liñ defee salle bi nga tey macha allah SBT Média na leen per bëgg fàllu gi noonu per del jaar si ginnaaw <laughs> ndeysaan Pape Ndiaye Seras gi noonu yóbbu na buubu ba ndeysaan Frontier yor na kaaf yor na benn leket cee Frontier boo ñëwee takkaay de mbër day xaña waay waaye Usine Technique moo gën seen na la teg wàll nga ndeysaan moo nekk na le Usine Technique ngeen seen na la moom pare nee na pare na arbitre ba na ko pare na <laughs> Usine Technique ngi noonu ñaari combat bi ndeysaan ñoom ñaar fu ñoom ñaar fa sori la li mën a yóbbu ndeysaan frontière moomu cee daan ki nga xam ne moom mooy Bébé Less arène nationale eh, eh, SDT bi daa ñàkk ama demur Pape fu mu nekk. usine technique ak frontière. asalam usine technique moo ngeen laa ilaaha illallaah usine technique bi ni ma ko gisee nii daal yor bëre boo ko xoolee yàlla takku ci dara ndeysaan cay làmb waaye frontière ci biir géew rek ndeysaan moo yor kaaf picc waaye xoole xale yi xale Siteu ngor yi tey ak ak loolu combat boobu dara boole spécial la <laughs> waaye Boy Sine ah, loolu lëf la Boy loolu lëf la maa la Boy loolu lëf la <laughs> lu rëy yaa maa la wax loolu frontière yi nga noonu seen technique da laay lay la frontière am na lu muy soccoo jël socc bi socc bi mag Coulibaly daal la jógee socc bi mag mag Coulibaly daal la jógee frontière am na béjjën bu muy samp ndeysaan frontière am na béjjën boo xam ne moom fay samp am na béjjën bu muy samp moom ngeen seen noonu Pape Diagne Seras fi nga doon taxaw picc yaa ngay naaw. maa ngay naaw ay Modou Lo Thiely ay bi nga mën picc yi day ay bi nga mën picc yi day picc yaa ngay naaw fuñ ay picc yi fuñ jëm. laay laay la laay ay waay picc yi fuñ lii lan picc yi am na lu muy cey frontière am na beneen am bu weex bu mu génne am na beneen morceau bu weex boo xam si ne nii muur nañ ko ko sotti ko butéel laay laay la Pape Diagne Seras nga di combat ba de <laughs> ki nga xam si ne nii ndeysaan mooy mooy usine technique moom pare na moom lay xaar usine technique asalem moom pare na bu yàgg moom ngeen seen noonu usine technique am na beneen butéel bu ñu koy sotti usine technique moo njool moo ñuul xaw mel ni man <laughs> usine technique moo ñuul xaw mel ni man waaye frontière moo moo moo moo xees xaw mel ni xaw a mel ni sama père sa wet ga moo nekk noonu ndeysaan sol mbokk koppati bu rafet ba ceeg TFM wax naa TFM ay jile lan <laughs> taay gi naa mercredi bu ni mu tàngee foofu. laay laay laa suñu papa Malick Thiandoum ñu koy nuyu di ko wax soo aale bee fa nii ndeysaan ne la yow lamb na ci am wàll foo nekk foofa foofa lay tàngee yaa jaar RTS ñu ne déet waaye nga dem seen tiyu toj ko ñu ne déet waaye nga dem fële nga xam ne mooy ITV toj ko yaa jaar fële yaa jaar yaa jaar TFM toj ko ay waay Malick Thiandoum bi lu mu nar ay waay mercato bi boole leen ma ci man damaa sonn fi ma nekk. aywa xaaral ma jël may Fabien fële ca TFM Fabien sax baax na <laughs> ay waay maa la wax loolu caméraman day jaate ginnaaw ndeysaan sama xarit bi maa ngi lay maa ngi lay <laughs> maa ngi lay bëggee sama waa ji dama laa ci loo nekk yàlla jaamu yàgg ah combat bi daa jeexale ci loo ko teg déggal ma loolu ñooñu ñooñu waa cité bu Ngor lan xale yooyu ngeen seen waa ah. am na benn morso bu weex bu muy wat di wër géew bi frontière ngeen seen noonu cay frontière ndax combat bi day mel ne combat keroog bi digganteem ak Bébé Less loolu ci kanam lay leer. derbi la derbi la la maa la wax loolu maa lay loolu derbi la Baba Maal ngi noonu ndeysaan Baba Maal ngi noonu Baba Maal nee na ji jeex na ay Baba Maal mi lu nar tey ndax ndax ndax waa daan la loolu dañ ko nar xoolal Maal Baba Maal yaram bi daa tàng nee na ba ma <laughs> ay Baba Boy di Maal tukulóor aare naa seen ndax dañuy dem Siba Mbodj Baba Mbodj Biguel Bonata may la yaay mbici mbici baay mbici mbici doom bu ko neexee ma caaca waaye Siteu bu Siteu bu Ngor pare na de laa ilaaha illallaah combat bi bu jeexee Siteu bu Ngor mooy ñëw diggante ak bu ca SBT Média frontière ba tey mi ngi sotteeku pare gud ba tey mi ngi sotteeku pare gud maa la wax loolu faa frontière ba tey mi ngi sotteeku pare bu doon jël faaw mu sotteeku. turandoo bi dafa nekk si ginnaawam. taxaw turandoo baa ngi nii taxaw maas. xam nga ne lii dafa daw yaram. mu bëre mu bëre ba def lu maas lii dafa daw yaram. xale bi jël boppam tuddee boppam kii. lii dafa daw yaram maas. ana car ba ngeen ko dama leen loolu. espère <laughs> que wax naa ne lamb yi daal du leen frontière bee ndeysaan moo tent bopp bi noonu moo def lu nekk ci làmb ndeysaan moo doon andi 15 car frontière moo nekk na numéro 1 mooy frontière numéro 1 moo doon andi 15 car stade Demba Diop frontière ngi noonu lan moo nar a am ndeysaan xale yi ma nga simi daal ya frontière simi na daal ya frontière si mbir na daal lee diril béjjën ba dem na maa la wax loolu ñaari mbëri lan moo nar a am arbitre daal wax ñaari mbëri frontière am na ko famb ko arbitre nee na famb waaye lii la ci làmb waaye ba tey usine technique nga taxaw fa mu taxaw rek usine technique mii <laughs> ma nga daa ma sa loxo ba faa. tey làmb maas làmb kenn xamul lim doon frontière numéro 2 mu ngi jàkkaarloog turandoom frontière numéro 1 ñu koy ñaanal wér gi yaram gudd fan waaye tey maas bi combat. waaye faa maa ngi nuyu maître Bassama avocat. avocat de la jeunesse maître ba borom borom parcelle nit ku yàlla baaxal ndeysaan maître ba maa ngi di la jox sa wàccuwaay di la kontaane maître ba sama xarit la pël bu rafet moo boole wala ak <laughs> mu taxaw mu taxawaay bu am solo ndeysaan présentation ñaari mbëri présentation ñaari noonu frontière moo ñu féete ndeyjoor usine technique moo ñu féete gauche arbitre bi daa ngi siisam Frontière am na benn avertissement loolu arbitre bi wax arbitre ba sifflé na Frontière ak usine technique ndeysaan ñaar xale yaa ngi noonu fa waaw ndeysaan arbitre sifflé na Frontière sàcc na tànk usine technique ba Frontière de combat bi combat dina la de laa ilaha illallah combat dina la de combat dina la frontière daanoon la usine technique daan na ko usine technique daan ko usine technique daan na frontière arbitre la wax arbitre sala met du terrain arbitre sala met du terrain nee